ñoo ngi lay nuyu di la ziar yàgg sa bokki bopp yu tedd yi nga xam ne ñoo fi teew ak njabootu sëñ tubaa gépp ak këri seexi sëñ tubaa yi ak bokki taalibe yi ak mbokki jullit yi ñu fi teew ñëpp ñoo ngi leen di ziar ak ñi ko yéene woon te mënuñu ko am na sax ñu fi teew ñoo xam ne bitim réew lañ jóge kon jaral gi moo ko waral ñoo ngi nii teew tey Mbacké ci sa kanam mboolem waa Hizbu Tarxiya ak bokk yi ak xarit yi ak andi jàmm yi ak dëkkandoo yi ngir yeesal si sunu jaayante fedd li sunu laxasaay di la ko seereel yow mi nga xam ne tey jii yaa fi toogal Sëriñ Tuubaa li jiitu suñuy kàddu nag mooy jottali la ak cant cant googu ñu lay seereel nag bokkale nañ ko mbokki jullit yëpp bokkale nañ ko mbokki taalibe yëpp bokkale nañ ko mbooleem waa réew mi dafa daj kàpp bu dee ñi ñu bokkal lislaam gi ci biir réew mi wala bitim réew muy këru diine yi ak ñi fi teewal yeneen i réew yi jullit ñoom ñëpp maase nañu seen kàddu benn la nee nañu jàppewuñu la xalifatu yoonu murit rek waaye ñu ngi la jàppee xalifatul islaam jëpp muy amirul muminin bu dee ci biir yoonu murit moom bu ñu yemoon rek ci kàddu yi seere ak cant yi nga xam ne mooy cant yu rëy yu bàyyikoo ci sa bokki bopp yi ñu yéene la lool sa taxawaay bi tey ñaan mu yàgg lool loolu buñ ci yemoon dana doy sëkk taxawaay boobu nag dafa maase ci taalibe yëpp maase ci jullit ñëpp li ciy dolli nag li ciy dolli ko rek mooy taxawaay boo xam ne war nañ koo tudd ndax waa réew mi ñëpp ko ëmb ci seen xol muy réew mii sa taxawaay ràññi ko na fi lool rawatina ci jamonoy mbas bi say ñaan say ndimbal sa jàppale ci askan wi ba saabu seen bët naree xonq rek bu ñu geesoo gis la saa su jafe-jafe amee itam sa kàddu ak sa loxo moo koy woyafal moo koy yéwénal ba ñépp amaat jàmm bu dee noonu nag waa Hizbut Tarqiyyah sunu cant moom sunu diggante ak yow lott nañ ci ndax fi gënu féetee naka jekk bi daara ji sosoo ba tey fu ñu mës a rek ànd nga ko nun gàttanu ngënu saa su ne taxawu ngënu ci sépp saa sagal ngënu siggil ngënu fu ne yëkkati ngënu itam fu ne te it mu jaral la it lu ne te loolu nag mbàkke xam nañ ne dara waralu ko lu dul sàmm ak dëgg ak li mu jaral ak défendre ak dëgg ak li mu la jaral lépp luy jëmale yoon wi kanam rek mooy sa yitte loolu mooy sa moo la soxal waaye itam da bëgg sawarloo dongo yi ay dongo yu sóobu wan ginnaaw àdduna wan ginnaaw lépp jublu Serigne tubaa bëgg koo liggéeyal te yow bëgguloo ñu taxaw bëgguloo ñu gestu bëgguloo ñu dëpp te bëgguloo itam ñu doon ay jirim ndax yaa ngi ciy liggéeyal sa maam ju tedd ji muy seexul xaddim moom mi wax ne waltu bashir biyel yataama man ansihim bii abahum ku la hiini jërëjëf Mbàkke loolu moo tax Mbàkke noo ngi dikk di feddaliwaat sunu laxasaay gën a dëgg ma liggéey sëñ Tubaa te duñu duñu ko booleeg dara duñu dëpp duñu gestu dongo yooyu nag jubaay Hizbut Tarqiyyah ñoo dikk tey teew fi sa kanam di ñaan sunu boroom mu fay la sa taxawaay boobu di la sàkkul itam mbooleem ñi mës a def ay futuxaat ci lislaam yu yàlla gërëm ba lislaam sosoo ba tey ñu ngi ñaan sunu boroom mu yeesalaat seen ndam yooyu ci sa liggéey bii ba képp ku ëmboon ci xolam jooy lislaam ngir tolluwaayu jamono wëlbatiku di ko sargal ngir sa taxawaay yëkkatiwaat nga ci kaw daare eh, raaya lislaam te dootul laal suuf incha allah bi barakatina cheikh bi barakati cheikhina alxadim cant gi nag mbàkke addiye ji mu àndal noo ngi koy noo ngi ci feddali sunu cofeel ci yow xeeb ko lool ànd ko tuub ak toroxlu ne ko sunu sang bi cheikh Mamadou Moustapha Mbacke waxe woon sëriñ bi ci bataaxalam boobee tubtu ilayka tawbata abdin zalimin laa yamliku li nafsihi nafaan wala darran addiye la ci boole woon joo xam ne itam xeeb ko tax na daf ko junj rekk ngir teggi ni taalibe wax ne waxat jaaltu fi yadil xaamili maa fi sóoratil qadri nun itam mbàkke ngir aw ci tànk yooyu di ci jéem rekk noo ngi lay jébbal limu jiimun su yaa baxduhuma muhmalu siinin moom lañu barkeloo ci ay million muy ñetti téeméer ak fukk ak ñett xeeb ko lool nag Mbàkke di tuub tey jéggalu li nu suñu jëwriñ ji sëriñ aatu kàddu ya mu la waxoon rek lay yeesalaat yal na yàlla sunu boroom dolli ko yërmande dolli ko njëggal te gàttandu ko ci ngërëmal sëriñ Tuubaa ba mu la jébbalee ci sunu ziar bi mujj 19 février 2019 addiye ja muy ñaari téeméeri million daf cee tegoon ay kàddu ne Mbàkke noo ngi dem waaye noo ngi dellu si amuñu fu ñu yem loolu rek lañuy feddliwaat tey noo ngi demaat waaye incha allah noo ngi dellu si waat balaa yàgg sëriñ aatu moomu nag waa is bu tarxiya gépp ak bokki boppam yi ak bokki taalibe yi ameel nañ la ak cant goo xamante ne ci sa taxawaay ci moom lott nañ ci ak seere yi nga ko seere te yow yaay sëñ Tuubaa rafetlu nañu njort nañ sax ci yàqin ci lépp ci mbiram ak ci sunu mbir sax jërëjëf Mbàkke jëf ji nag dina baax rekk xantal ko ba mu leer la nañ ndax lépp sa alal la yàqu moom am na ci ñoom ñoo xam ne seen liggéey dafa màgg ba yaatu noo xamante ne ñu tënku ci biir daara sax dina jafe léegi waaye loolu yokkute rek la Mbàkke seen xel mësta jóg ci liggéey bi mësuñoo tollu fenn te ànduñu ko ñun moo tax ñooñu bu bi ñu dajalee li ñuy def indi ko ñu bokk boole kook bokk yi ak am di jàmm yi ak xarit yi ak wëllëri yi lépp bi ñu ko boolee takkatoo ko dafa doon fanweeri million ak benn yu tegal deux cent soixante-douze mille neuf cent loolu dañ ko booleeg lële moo indi li mu ñetti téeméer ak fukk ñett waaye ngir wane ne loolu dañ koy barkeeloo waaye yemuñu fa ndax fii ñu toog rek li fi dajawaat mët na juróomi million te duñu arrêté lépp nañ ko booleeg addi yi jox la ko Mbàkke li ci topp mooy mbooloo mi daje tey jii nag Mbàkke dama jublu rek seere leen ndax ay borom pas-pas lañu yoo xam ne li ñu àndee weesu pëstéef ak soññante ci ak jub ak liggéeyal sëriñ bi ku ci ne royukaay nga ci sa morom ñoo ngi ciy sant sëriñ bi ah, ndax moo nu ko fàggul mu nañ ko misaal rek sax ci jataay bi ci li mu wax ne lakkaru joo yi maal jumoo yi bi xayri joo yi wala xataay loolu sëñ Tuubaa nu ko defal moo waral ñi fi teew ñëpp ak ñi ko fi yéene a teew te mënuñu ko ñu ngi leen di sàkkul ci sa barke ak ci sa caabi bopp yi nga xam ne Serigne Touba teg na ko ci sa loxo nga tëjal leen seen bunti njàqare yëpp te ubbil leen seen bunti xéewal yëpp tey ak ëllëg rafet nañ ci njort Mbàkke ñoo ngi lay sant waaye mënuñoo daaneel te jotul ñu yóbbante boo xam ne ñu ngi bàyyikoo ci soxna yi yi nga xam ne ñoo ne ci mbooloo mi. ak tout tànk yi bu dee soxna yi nee nañ sam sañ ñoo yëkkati seen kàddu ngir teggini lislaam waaye ñi ngi lay sant ndax gën nga leen a gindi ci Serigne Touba ba amatuñu jënn yitte lu dul tënku ci ak taalibe nangu kilifteef jàng seen diine ba xam ko góorgóorlu ci jaamu yàlla nangoo topp seen borom kër nangoo sonn ci yar seen njaboot ci lislaam akuk taalibe nangoo joxe seen alal ci yoonu yàlla wan ginnaaw puukare adduna yépp ci gàttal nee nañu ñoo ngi fas yéene def seen royukaay muy soxna jaaratullahi buso bu dee xale yi nag ñoom nee nañu ñoom dalal nga seen xel ndax sa naal bi gën a rëy ci jamono jii ñoom nga ko jagleel muy daara ju mag jii ñuy xayma ci fanweeri milliards ak juróom-ñaar te xam nañ ne sax dina ko ëpp waaye ak fu mu mën a yegg incha allah loo ci yóotu sëñ Tuubaa dina la ko defal moo ngi lay sant dina gërëm di beral ak cant sa bokki bopp yépp tàmbalee ko ci sëñ Cheikh Mamadou Bachir nii ibnu seen Abdou Khader mu yor sa kàddu liggéey ñu boole moom yëpp taxawaay bëgg na rafet la ci taxaw kon ñoo koy sant di ko gërëm njabatu sëñ Tuubaa gépp ñu ngi leen di sant di leen gërëm taxawaay bi benn la di la xamal ne nag liggéeyu kër xasida yi ñoo ngi ci bu baax taxawul senn saa ñoo ngi ci dajeeg saa su ne taw feexi sëriñ bi bu baax a baax di sàkku nag mbàkke nga dolli ñu cee ñaanal rek ñu yegg la ko balaa yàgg ñu jébbal la caabi yi ni ko sunu jëriñ ja waxee woon ne la jébbal la caabi ji balaa yàgg incha allah loolu moom laa ci doon dolli la ca tege dafa am nag mbàkke lu may yalwaan am ci ndigal muy sama kàdduy bopp yoo xam ne mënuma koo ñàkk a jottali ndax ëmb gu ma ko ëmb ci sama xol ginnaaw yàlla dafa dogal bu euh, lu ma yeyoo waaye ci sa barke dina ma ñoddi ba incha allah liggéey bi duma ci yàq dara loolu ci sa barke laa koy amee ndax sama dara dafa maa doyut waaye sa lépp dafa maa doy sama kàddu yu bopp yooyu mooy ziar bii ci lay tàmbalee ak liggéeyu koor gi nga xam ne lislaam yëpp kañ lañ la ci sa ndami bopp la bokk ak këru bi gi nga xamante ne ñu ngi koy liggéey te ñi nga tànn ñu yor liggéeyu université bi ñëw nañ fa ñëwuti fa saa su ne ñu fay ñëw waaye wax nañ ne bokk na ci liggéey yi gën a dal seen xel ci biir liggéeyu université bi ndax sàmmonteeg mu sàmmonteeg réew yi àdduna yëpp ni ñu sàmm ni ñu sartalee wàllu tabax gën koo xemmeem ci wàllu tabax gis nañ ko foofu ci liggéey boobu loolu kon yaa ñu ko defal war nañ cee sant waaye ni liggéeyi daara ji doxee te dara demul dara des man dama ci seet loo xam seetlu loo xam ne faw ma seere ko ci sa kanam muy daara yi muy école yi muy tool yi muy tabax yi muy jur gi muy machine yi muy woto yi muy télévision yi rajo yi ba ci xeeti xarala yi nga xam ne day xamle sëñ Tuubaa àdduna sépp di ko xamandoo lépp dama seetlu ne mi ngi doxee noo xamante ne dama am lu ma ci seetlu bëgg koo waxtaanee mbooleem ñu ma bokkal liggéey bi ñu bokk xam ko ndax moo ñuy dimbali sàmmal ñu suñu Pastef mooy ñu xam ne sëriñ Tuubaa kenn féetewu ko fenn kenn mënu koo defal lenn daf ñoo dimbali dong suñu ngóora ak suñu yitte ak suñu mën-mën mënu ko lii dañ ko war a seere ci sa kanam xam nañ ne kon moo ñu dimbali ba ñu mën koo def lii daal Mbàkke lañ la woon ñu ñaan foofu la waxtaan wi waaw ñu def ko léegi mën nañ cee nekk bañ la xaar bañ la xaar fu waay nekk ok waaw sëñ mi nee na nañ ci nekk rek wéyal waxtaan wi waaye suñ ci tolloo ci ñu liqaam rek jàkk ji ñun fii kon moom mii moo ñu jiite ñu liqaam fii waaye fu waay nekk rek na taxaw jublu penku rek du ñu soppi du ñu soppi dara ci jataay bi lu dul ku ne day jóg rek jublu penku moom moo ñu jiite jërëjëf waaw waaw waaw waaw kon sëñ Amadou Samb waajalal jullikaay bi ak lépp rek waaw kon bisimilah. kon defe naa taw feex sax dafa am mooy fi ñu matalee dañuy ñaanal sëñ bi rek mu yàgg fi te ànd ak wér euh, na fi yàgg te ànd ak wér te xam ne ñun xam nañ ne sëriñ bi ñu ko dimbalee li Seydina Omar jullit ñi yëgoon ba mu dikkee ñu ne bushraa li ahli sabaawul kullu yaxtaaru ñun bu ñu xamoon tey jii loolu la ñëpp di way waa kaw ak waa suuf na bu Muntaxa ñëw na kon yàlla na fi yàgg te wér